Talen Adjam, ak président de la république Macky de Fatajek, tëjeek mountaha, Muntaxa Mbàkke le sol di halif général des Mourides Goudik Altuné, bi 22h De jot 23h information boobu nag daanaka way taskatu xibaar yëpp ñoo ko bind wante ci xibaar yi ñu jot nee nañu ki nga xam ne moom mooy sëñ Mountakha Mbacké moom recevoirul benn yoon kii di président de la république Macky benn ab nag source bu jege lool njabootuk ki nga xam ne moom mooy sëñ Mountakha daal di nay wax nag ne nee na loole amul benn yoon xalif général bi recevoirul Macky Macky Sall te ma Macky Sall tegu ko kët benn yoon ci joojule jamono nag presse national bi ki ci nekk rek di wax ci boobu lépp audience bu ñu naan daa duré diggante 10 ci guddi jàpp 11 heures ñooñee nag ki nga xam ne moom moo yëkkile kàddu bëggul kenn wax turam wante nag leeral na nee na kenn daal di recevoir Macky Sall kenn recevoir ko wante tamit nee du xalif général bi moo ko recevoir moom nag loolu la dëggal.

président de la république nak, qui di Serigne Moussa Nawel néna na defu fa fanweeri minute sax ginnaw nak bañu ñu jotee yooyu le ndax nak jamono jilé li nga xamné mom moy moom général des Mourides jàpp nañ né nak li xew Sénégal metti nako ba ci kanamu Yalla ak nit ñi nga xamné ñu ngi leen di faat di leen tirer à balle réelle té yitt xamna bu baax li xew ci biir réew momulé ndax ay tension yu métti moom moo am uh, biir Sénégal kon nag buñ ne Macky Sall ki nga xam ne moom mooy sëñ Mountakha uh, da ko recevoir nee nañu loole waxuñu lu am benn ab yoon kenn sëriñ recevoir la ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ndaxte sëriñ bi nag dafa indisponible ba uh, tax ne nag kenn recevoir la kii di président.